benn fan ginaaw xeex yi ñu ne nemmeeku ci ndajeem front pour la défense de la démocratie diggante ay militants yu ex-Pastef ak yu taxaw Sénégal kuréel gi di JPS jeunesse patriotique du Sénégal di teg bépp tuuma bu jëm ci mbir moomule. ku ne xam na kuy sa baay donc buñ ñëwee ba tey ñu bëgg a créer une dualité artificiellement entretenue parce que du. dualité balaa moo am il faut mu am lu ñu woowee asymétrie des puissances donc comme ñun loolu comprendre nañ ko patriote nañ def nañ nañ nañ ngir loole daal dinañ tëral plan d'action boo xam ni ci. mooy former ndaw yi ba ñu xam lan mooy projet bi ba ñu xam lan la ñuy ban yoon la ñuy jaar pour réew mi fi ñu ko bëgg a ñu mën ko foo yóbbu ñu ngi dellu di feddali suñu pas-pas ak suñu taxawaay. ci la muy sàkku ci seen i militants ak i sympathisants mooy ñu tewee bépp ndaje boo xam ni la ko soxal moo di sàkku ñu amal élection présidentielle laata ñaari fan weeru avril bi ñu dëgmal daal nañ ñaawlu itam anam ba nga xam ni noonee lañ tegee loxo seen i ay militants ak nañu nekkee woon ci prison yi nekk fii ci Sénégal ku ci mel ni ndaw si ñu woowee Yacine Diagne. nekk kaso te mu wóor la ne yaa nekk sa soutien famille wu famille yaa yor seen dépense yaa la ci yaakaar naa metti woon na. jeunesse patriotique du Sénégal fas yéene gën a dëgëral seen jéego jëm ci xeex ngir ñu teggi loxo kenn ku bokk ci ñoom di seenub coordonnateur Ngagne Demba Touré naka noonu bépp militant boo xam ni mu ngi jamono ji ci loxo yoon.